bokk yi taalibe yi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk sëriñ Fallou ngi lay nuyu sa tur ak sa sant nuyoo bu gën tedd ci nuyoo yi nuyoo bu gën kawe ci nuyooyu li waral woote bii nag mu di ko woote daa am lu nu dëgmal te am lu ko daan jiitu loola moo di ñaan ku ñuy ñaanal sun sang bu tedd ba sëriñ Amdi Yaasin Fall moom sëriñ Asan Fall mam maam Cheikh Ibra moo ñu fi dajale bis bi war a tombeek altine jii di ñëw di juróom-ñetti fan ci weer tubaab di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru wolof yi ñu nekk ñu war koo màggal jàng fa alxuraan ak xasida sikkarulaahi tudd fa yàlla loolu la sëñ bi wax ne moom lay woote tey jii wax nag ne ci ginnaaw woote boobu dem am na ndigal loo xam ne dafa wax ne nii jamono ji tëdde ba kër yu mag yëpp di ci dox noonu rek la kër gi fas yéenee doxe mooy ñu moytu li nga xam ne moo xew di jàngoro ji daj réew mi kap ñu ñaan ci barke alxuraan ak addis ak salaatu ala nabi yàlla ko fi yàlla jële te seeral ko guy te bañati ko te bañati ko dégg fenn ci barkeb sëñ waa sëriñ bi de wax ne ne woote wu ko dafa bëgg kenn ku ne na nga fa daa ñëwee foo toll ci sa kër ak sa njaboot nga toog foofa defee ko fa yéene yool ba sëñ Amdi Yaasin ak sëriñ Asan waa juróom ba ak maam Cheikh Fall ak njaboot ak Cheikh Fall gépp léegi loolu mooy ndigal li ñu boole koog nag saa yu at mi ma saa jot premier samedi bu nekk sëñ bi da daa dajale lam am ci addiya damuy ànd ak taalibe yi di ko yor sangam bu tedd ba sëriñ Amdi Yaasi sëriñ Amdi Xadi Faal addi jooju nag moom la sëñ bi woote di ko laaj ñi nga xam ne ñoo di ay kilifaam te war koo séq ak ñoom liñ fi jot a dajale mi ngi nii kenn ku ne mën na koo gis jër ñuy tiib lim bi ndax lim bi dem na ci fukk million ak nangam yoo xam ni fas na ko yéene joxe ci ndigale sëñ Tuubaa fas na ko yéene joxe ay ay sangam sax fas ko yéene joxe ay jëwriñam. sëñ Ablaat am na baat bu mu waxoon boo xam ne bu mat bàyyi xel la nee na woon. am na mbokk mbokk mu waxoon na ko yow de dégg naa nga di ma yedd naan ma li fiy ñëw mën naa cee génne dépense mën naa cee joxe ab reer waaye dama laa bëgg a xamal li fiy ñëw ni mu demee as gor xoo xam ne gënoo ko gore gënoo ko judd gënewoo ko it lu dut lenn te la nga ko gëne mu nangul la ko boo toogee ci kaw mu toog ci suuf boo nekkee ci ker gi mu ne ca naaj wa bàyyi aw santam di wuyoo saw sant boo yoo ko yónnee mu daw boole koog di wetti aw ñaqam di la ko jox war ngaa xam ne sànniwut ñaqam woowee bis la koy xaare daal wax na bis boobee nag ñaqam woowee mu lay jox soo ko ci faywut lenn lu weesu di ko tabaxee ay kër ak di ko jënde ay oto ak di ko takk ay jigéen bis dana ñëw nga toog ñaq wa toog moom mu toog te boobaa yéen ñaar kenn du wax ñaq waay wax su ne nag bu boobaa nag am fa gàcce dee wuute koo ko gën sëñ Fallou mii nag loolee dalu ko ñaq wu ko ab doo nga jox su ëllëgee dana la mën la joxal naa la ko sëñ Touba wala joxal naa ko maam Cheikh Rahima Fall loolu ne leen bis ba ñëwagut waaye damaa bëgg ñu dajale addiye ñu mën a dajale fukki million teg ko ci loxoom bari na ñoo xam ne tey jii buñ soxla woon ñaari million di ko woote kenn du ko jox gis ngeen léegi bi ngeen dajalee ba noppi daa génn ci poosam génn ab lim boo xam ne wóor na leen ne ñoom ñëpp kenn mënu ko cee génn mun a defal leen ma ko ci bañ ne daa manqué daa jóg dem ci biir rakkam yi ñoo ko ne toogal kon nag taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom bu ñu nax suñu bopp bu leen jaaxal ab taalibe sëñ Tuubaa waxoon na mel na mag ne ko isaa jenn mu ne ko mbakke mu ne ko baa du ngeen dig seen taalibe yi lu ngeen amut mu ne ko mbàkke lu ñuy dig taalibe yi te duñ ko am mu ne bëgg leen a jariñ te nanguwu leen lew liggéey loo ku nanguwut a liggéey ci yoon wi doo ci jariñ kon yoon wi yoonu liggéey rek la tey jox sëñ bi du jox sëñ bi sëñ bi yoralu leen ko dépense am yoralu leen ko këram du ngeen ko fajal waa këram du ngeen ko jëndalee oto sëñ bi lu ngeen koy jox am defal ma ci kees gaal gi soo liggéey nga ne ko andi laa képp la kenn ku ci nekk am defal ma ci gaal gi rek la defal ma ci gaal gi nag sëñ Abdu noon na su fekkee dañoo daal daaj gaal gu rafet dénk la gaal ga kenn ku nekk ne la daa am bis buy ñëw boo xam ne damaa bëgg su ma ci àggee mbubu ma gën a rafet la sol ko ku dem xotti am mbubam ñaw ko ba mu àgg na la dencal ma ci gaal gi nga di ko dencal te dencoo sa mbubu ci gaal gi bis dana ñëw ña la ko dénkoon buñ jëlee seen i mbubu soo fi dencutoon mbubu doo sol menn loolu mooy addi yi ji ngeen koy jox am dencal ma dong la kon nag ginnaaw yàlla dogal na saa yu leen wooyee ci yàlla rek la leen di jëmee su leen wooyee ci kaay leenu ànd liggéeyal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa nee na woon pajog aajo adduna ak goog àllaaxira nekkut fenn ci weesu di ma liggéeyal wax waqdi hawaa'ija allazina daamoo fii xidmati inna allazina saarahoo fii xidmati kon ku bëgg a texe ëllëg da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa ku bëgg yàlla faj sa aajo ci adduna da ngay liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ bii nag ci kaay leen ànd liggéeyal sëñ Tuubaa képp la leen di woo du leen woo ci leneen mënoon na fu ngeen ko gis mu sotti ay mu xëcc ay garambu bam ya gën a rafet dugg ci ëtt ba gën a rafet fu mag nit ñu baax ña toog mu toog fa waaye moo leen di gën a woyof mbuumu ngeen di sol moo leen di gën a ñeme naaj wi gën leen a ñeme pënd bi dara wëralu ko lu weesu wóor ko ne ngërëmul yàlla li Seex Ibra amoon amewu ko ci lu weesu pas-pas ak nangoo liggéey mu fas yéene wuti ngërëmul yàlla boppam kon nag ñeen ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ngeen ànd ak moom na ngeen xam ne fi ngeen teg seen tànk bu fekkonte ni sëriñ buy jaay la bari na ñoo xamante ne bi tey ji daañ waxaale seenub sëriñ jënd jamono neexut te kenn ku ne am nga sëriñ am loo ca mutuwaale mu wóor la ne lii neexul waaye mënoo ca dara ndax sëñ Ablaat doon na wax lu waay fekk ci sa kilifa muñee ko ca sante ko yàlla te xam ne dogalub yàlla la kenn du tànn sa bopp kilifa bu la fekkee nag nga fekk ci sa kilifa la gënal nag war ngaa sant yàlla bu baax te téye ko bu baax te wóor na leen ne yéen ñëpp man ngeen a waat ne sëñ Fallou mii ngeen àndal amu leen lenn lu leen naqari ci moom loolee nag pas-pasu boppam moo ko may ak jomi boppam ak jombulu ak jombulu jombu na maa teg sama tànk fi bërëb sàngam sama rakk yi di ko gis jomb na maa teg sama tànk fi bërëb sàngam taaliba yi di ko dégg jong na maa def nangam bokk yi di ko dégg ku jombulu wut ku ne dara jombula waaye ku jombulu nag da nga xam fi ngay teg sa tànk te am na mag mu waxoon ne koo xam ne foo jaar ci guddi gi su bëccëgee mbooloo mooy topp sa tànk daal jaar fu leer sëriñ bii nag moom fi muy jaar su guddee bañut kenn ku topp tànkam te loolu mënees na koo waat mënees na koo seere